waaw ah, moom laay waxal. moom laay wax 15 mois mais li ñu deful ci 10 ans ñu ko def ci 15 mois. non non non non moom il, il, a a fait quand même des efforts au Prodac ah yow. Mm. Voilà. mais aujourd'hui yaa ngi koy wax compte des efforts ak yi nga xamante prouvé na ko foofu tey jii pourquoi ñoom mënuñu également appesantir ci lu mel noonu pour gën a renforcer également ci. Ah, mais moo tax ma ne ko nag vous serez notre interlocuteur. l'interlocuteur des Sénégalais auprès du président. mais Prodac ah? ah, effort am na fa. Pape comme ça ak bu dee effort am na fa man de Prodac dafa ku may fàttali sax mais bon bref. non non bàyyi ko. Euh, jëwriñ la si euh, gouvernement bu wees bi bon euh, en fait euh, li ma li ma bëggoon wax rek mooy tuuti sa micro li ma li ma bëggoon wax rek mooy li sànq monsieur le ministre wax ci li ma doon wax en fait man damay expliquer l'économie pour les nuls ñu mel ni man Euh, parce que budget boo leen di dégg ñuy wax dafay mel ni loo xamante ne lu graaw la benn document la rek bu état bi établir gouvernement bi établir yóbbu ko parlement maanaam assemblée ñu foote ko mi prévoir ak di di di di di di di wax dépenses yi fan nañ koy dugal ak recettes yi loolu kase la. mooy li ma la wax mën nga ko jëlee sa kër ndax ngay def budget semaine bi ñaata ngay dépenser selon yow recettes yi maintenant bu nekkee recettes yi yow say recettes dañuy déficitaire maanaam say recettes yi yow bu nekkee dañoo seen politique budgétaire avant la crise géré woon nañ ko. waaw d'accord xam nga dafa am loo ko wax. Mm. tey jii ñëpp accepté nañu bu nekkee déficitaire dafa nekk en fonction des besoins de la population. Mm. mais duñ si am benn mais bu nekkee en fonction des besoins politiques politiciennes bu nekkee ñoom seen dépense personnelle nañu wax mi ngi budget bi na na wax dépense dépense personnelle état du Sénégal ñaatal nga wax ko nga xool par rapport ak année yi ci ginnaaw dafay gën di yokk di gën di dem donc dafa am loo xamante ni yaakaar naa ni je pense que ni jarul sax ngay xool ay théorie di wax yu bëri li ñuy wax aca ñëwal li ñuy wax rek loolu y a pas de souci euh, dañu ni que gis nga Sénégal am na ay leviers yoo xamante ni bu ñu si tiré woon Sénégal économie des la preuve douane rek doy na exemple douane ñi ngi ko fekkoon lan ay 600 800 milliards ba leen Macky Sall ñëwee neen dama soxla 1000 milliards dañu ko lijjanti. Pape Sané mi ngi koy wax 3000 milliards nañu am ci li nga xamante ni mooy euh, TVA wa kii mais ñaata kër ñoo fi nekk war a fay euh, TVA duñ ko fay donc ñaata niche yoo xamante ni tey jii bu ñu si duggoon mais Sénégal day dépassé loolu dem yoonam parce que en réalité dafa am problème volonté politique ak exonération yoo xamante ni dañ koy def tout le temps mi favoriser ñi nga xamante ni ay ay ay étranger nañu. amuñu benn problème ci loo xamante ni tey jii dafay créer emploi mais tey jii bu nekkee dañuy jël par exemple Sococim nga jël par exemple euh, Ciment du Sahel wala nga jël Dangote ñooñu déjà seen responsabilité euh, sociétale duñ ko respecté boo demee ci zone yi ñuy nekk parfois sax da ngay gis ay écoles yu nekk foofu noonu seen bat mm-hmm. seen seen seen euh, seen mur daanu pour ñu pour ñu tabax ko problème la ñooñu état di wëlbatiku deen dafa exonération mm-hmm. au nom de parce que nee nañ dañ def lourd investissement mm-hmm. lourd xamante ni bu ñu jëlee seen capitaux dañ koy yóbbuwaat seen dëkk donc je pense que ni dafa am loo xamante ni gis nga ñun li ñuy wax mooy xaalis bi nga xamante ni dañ koy liggéey fii ci Sénégal di utiliser suñu matière première mais au moins sénégalais yi sentir ci seen bopp bu ñu ni woon tey tëngeej bële Sococim def na fa ngandam hôpital boo xamante ni taw de dernière génération la mais ñëppay applaudir bu ñu leen defee exonération mais ñëppay naan euh, lii yoon na mais bu ñuy nuwee tey ñoom dañuy ñëw polluer jël suñu ressource jël seen alal dem seen yoon yóbbu ko seen réew ba noppi bu contexte bi xawee dëgër tuuti ñu yokk seen i ciment bu Dangote ñëwee ni damay wàññi prix bi ñoom ñi ñëw taxaw ni parce que français ñoo ne seen ginnaaw ni kenn du laal benn prix ba ñu obligé ba Dangote ba muy ba muy ba muy ñëw lu mu ñu doon promettre yëpp ñu ko mënu ko respecté donc je pense que gis nga li ñuy wax nii euh, Pape ñëpp bëgg Sénégal ñëpp nekk Sénégal mais problème bi mooy souvent dañuy wax en fonction de ñun suñu ay suñu ay suñu ay euh, lu mu tudd sensibilité. Mm-hmm. bu nekkee da nga yaakaar ni que fii dafa am ay opposants wa yooyu yaa ngi juum fii ay sénégalais fi toog yoo xamante ni dañuy dund. au quotidien problème yu sénégalais comme ni nga ko doon dundee laata ngay yegg ci yenn yenn yenn poste de responsabilité et eh, ñu souhaité la ko kontaan ci yow di la ci encouragé bu baax parce que ndaw boo xamante ne dañ ko jox ay responsabilité mais mënuñu lu dul ñaanal ko bon vent parce que loolu nañu soxla ndaw yi ñu dénk leen ay responsabilité mais ndaw yi aussi bu ñu demee di ñu représenté mais war nañu représenté dignement mhm. war nañu mën a jiite li nga xamante ne mooy honnêteté intellectuelle ni tey jii reconnaître que plus de 300 000 nit ñooy ñëw ci marché de l'emploi mhm. xale yooyu noonu sànq rek am na benn xale bu may interpellé ni ma dafa am li nga xamante mooy licence am fii ci euh, université du Sahel mënul jot ci diplôme fi mu nekk di liggéey bag la fa présenté parce que mënul jot ci licence parce que tout simplement état du Sénégal fayul université du Sahel moom mënul jot ci diplôme parce que état bi euh, fayul université du Sahel université du Sahel téye seen diplôme te loolu nekkul situation boo xamante ne bu bu bu bu cas bu particulier ñaata nañu waxoon la dette bi nga xamante mooy état du Sénégal yoreel privé yi nga xamante mooy jamono euh, xale yi ñu jëloon dee leen ay ah? mais pour dire que ni pour dire que ni euh, dafa am ay problèmes yoo xamante ne mm-hmm. sénégalais dañ koy dund au quotidien moom mii ndaw xam ko mm-hmm.